naqar ak tiis la waa quartier montagne nekk ci commune bu Hann Yaraax yeewoo tey ci samedi bi seen doom doon wuyoo ci turu Daouda Diouf ñu gën ko xam ci Pa Badiane tollu woon ci ñaaf ki at nekkoon nappkat la ay defkatu ñaawteef jàmpaaka ci guddi aljuma ji ba mu jaare fa ñàkk ba kanam ñi ko fekke di dikkaat ci ni anam yi xewee ñun affaire bi ni mu yemee ci ñun mooy une heure matin une seize la affaire bi dal ci sunu kaw mooy ay samba boy yu jóge fii si soirée bi amoon centre socio culturel bi jóge foofu fekk xale yi ñuy connecté wu muy xaadim ak alandong ak Iba ñuy connecté wu ñu bëgg a foqati téléphone u xaadim euh, biñ ko bëggee foqati xaadim ne leen lu ngeen di def nii ñu daal di rocc paaka bi ñu yor xàcc ko xale yi tasaaroo yuuxu bi ñu yuuxuwee ñu dóorante ñoom ñi ñu àndal ñu yoroon ay bant ak ay ngànnaay di ko dóor xale yi xale yi daal di daw daaw da ba jaan mi ñu rey tey nekkoon ci sama néegu yaay daal di génn bi mu génnee dégg yuuxu yi mu daw dugg génn ci biti bi mu génnee ci biti yem ci ñoom daal di dóoranteeg ñoom ndax da leen a dàq ñu génn dem mais dem bi distance bi sorentewul tuuti la rek ñu wàññeekuwaat dab ko ak ngànnaay bi ñu yor ñu baddax ko ko jam ko ko ci fii biñ ko ko jamee nag boobu yaram bi tàng na mu daw di leen song ñoom ñu rëcc ko yeneen xale yi daal di daw daal ne jàpp leen leen jàpp leen ay agresseur lañ biñ leen waxee loolu si la Papa Diagne song sama mag bu jigéen muy Aïda juuf mu ne ko Aïda Diouf jam nañ ma Aïda Ndiaye jam nañ ma daal daanu tëdd Aïda Ndiaye daal di yuuxu bi mu yuuxuwee moom ci boppam moom Samba Boy bi wàññeeku waa duggaat ci biir kër bi ci biir kër gi di nanguwaat téléphone Daouda Diouf mi nga xam te ne moom la jam mu làmb poos yi palpe ko récupérer téléphone Daouda Diouf di récupérer téléphone yi nekk ci biir néeg bi di ko sàccaale ñun tamit man ci laa daw génn bi ñu nee téléphone yi téléphone yi ci laa daw génn ma sukk ci Papa Diagne ma ni torche bi gis Papa Diagne ma sukk ci kawam ne ko jaan paaba Papa Diagne wuyuwul ma ne ko paaba jaan bul ma def nii. biñ taale si oto dem première fii njëkk a euh, kër gi njëkk a dem mooy kër ñoom euh, Yaxya Baabu parce que turam lañ doon gën a dégg. ak Ahmed beneen booy bi aussi mënuñu woon wax kan la boobu xamaguñ ko ñu dem kër Yaxya Baabu fekk ñu fa Yaxya ñu fekk fa yaayam yaayam nañu kooku Yaxya nekk fi woon dafa demoon Mauritanie non astafurlaa jiwaalo la demoon campagne ñëwagul xam dégg xam nga loolu ay fausse ay information la te Yaxya xeex ak booy bi jam ko ci sur le coup Yaxya moom moom la wax moo déclenché jam bi mais Ahmed moo moo moo jam booy bi. beneen booy bi nga xam ne bi ñu jamee booy booy moo ko téye Aliou Diouf la tudd moom bi mu téye booy bi ba booy bi di señee ci moom sama grand frère ñëw Pape juuf leewu booy bi yëreem yëpp yàqu ak deret mu jël booy bi yóbbu hôpital bi mu yóbbu hôpital Aliou booy bi jam ñetti booy ñu ngi romb Aliou mi mi njëkkoon def premiers soins yi Aliou booy ñu ngi ko romboon euh, Ahmed naan ko waroo woon jam non Yaxya naan Ahmed waroo woon jam yaa ngi comprendre Aliou moom foor na lool si nopp mais boobu xamul woon exact lan mooy cause bi ndax ne ñooñ ñoo jàmm léegi nag bi leen booy di dóor sama petit frère ñëw ne booy bàyyi la balaa ngeen di rey mais boobu xamul ne moom dañoo jàmm doomam. xam nga loolu tamit dafa doy waar te encore affaire bi man léegi dafa maa jaaxal ay xale yoo xam ne l'âge de treize ans quinze ans dama lay rey dama lay jàmm ba mu nekk dëgg léegi ñun dañuy daal di perte ñun moom perte nañ Mass Diouf di papay Daouda Diouf di ñu xamal ni doomam jooju ku ko déggaloon la ba pare nekkoon xaritam. su ma xarit la nag su ma waay la ay moroom lañ waaw ay morom lañ euh, jour barki démb barkaat démb suma gàlle bi may tabax moom moo fa dem moo ay copain mu yënd fa ba ngoon mu ñëw ne ma papa léegi ñu tuxu si léegi ñu tuxu ah mais xamoon naa bon tey moom du ko fekkee te vraiment moom moo ci sonn. ñax na si chaque jour dama koy bëgg gërëm parce que man bi ma amee âge yu mu am suma papa gërëm na ma sama yaay gërëm na naa su ma ko mu fa ñàkk mu tax chaque moom di ko wax doo jàmbaar doo xam naa ne jàmbaar la parce que doomu aadama li vraiment soo ko waxul tam yaa ngi lu bëri nag lañ dindi si man lu ma metti lu ma métti lu ma ñoom sax ñu ngi ñaawlu drogue bu bari bi ak ñàkkum kaaraange bi ci seen gox. bi ñu defee xeetu ñaawteef boobu ba pare dañoo jaar ci biir dëkk bi daw ba pare ñu rey sunu doom insécurité total parce que fii mënuñu ne yaraax lañ dëkk amuñu làmp amuñu courant. nu leen neex la ñuy def agressé bi bu ñu jullee gee ba pare ku nekk da ngay fàttu sa kër parce que dañuy ray rek. tey su fekkonte ne aw ma expérience dem gendarmerie ma topp suma xol suma ma booy yi fu ñu nekk si biir dëkk bi balaa ngoon dinañ génne ñëpp te dinañ def loo xam ne ëllëg ak si biir ah, dina doy waar trop moo tax yoon dafa war a jóg dafa jóg négligence bi ëpp na ah dafa ëpp xaw a garaaw xam nga yaraax insécurité bi mu ngi fi am xam nga bon drogue bi lu fi neex la fiy circuler nañu waxante dëgg vrai ou faux fii yaraax dafa salte salte bi dafa bari. daf fi bari quoi nañ ñu si dimbale ñu loolu la ñuy lancé autorités yi li ko lancé xam nga sécurité sénégalais bi xam nga ñëpp ku si mën a jàpp nga jàpp si yaraax dafa bëri salte boo yu ndaw ngay gis ñuy tux ay save indien du ñu sax âgé de dix ans wala onze ans mais loolu grand ci lan la bokk. ginnaaw bi ñu nangoo ndogal bi dal seen kaw ñoo ngi ñaan ñi yore kaaraange gox bi gën a farlu ngir def yooyu bañati faa am.